Rewmi 24 TV mu mel na rek avocat bi ñuy woowe euh, maître euh, Ndoumbe moom rek ma ngay xam leen rek radiation wu Ousmane Sonko ma ngi ko yëge ci mandataire bi muy wax Ayib Daffé ginnaaw rek ba ko deesee euh, gàddalee rek di ko xamal ne rek mënoo fee jëlee fii su parrainage moom mii nag boobu lay door a yëg ne rek kon boobee la ñu rajee Ousmane Sonko ma ngay xam leen rek ba tey kon boobal rek bu fekkee ne rek ci diggante bi rek daal di lañ fiy jàpp Ousmane Sonko te àpp ba jotul kon li ñu waroon def rek mooy defaraat beneen procès maanaam ñu daal di rek organiser waat beneen benn projet loolee rek la maître Ndoumbéwane mi wax fii nag ñuy wax ak yéen rek audience bi daal dinañ koy rek suspendre fii ak 30 minutes mu mel ne loolu moo am ca tribunal ba kon fii ñuy wax ak yéen yi daal daal dinañu koy rek suspendre 30 minutes yoo xamante ne rek dañañu ko rek xaaraat fi mu toll nii rek waaye avocat Ousmane Sonko yi moom ñi ngi indi rek ay preuve yu leer naa ñi saa su ne rek di ko tegal ñi nga xamante rek ñoom ñooy juge